tay dañu ñëw fii parce que euh, programme CMU yaakaar naa ñëpp xam nañ ko moom la ñu bëgg a évaluer donc euh, évaluation bi dafa nekk loo xamante ne dafa normal ci benn processus surtout ci administration bu amee programme bi nga xam ne def na comme CMU 7 ans il faut ñu taxaw xool lan moo si baax lan moo ci yemambaay ak li nga xam ne baaxul pour que ñu mën ko identifier nous avons am ay solution yi nga xamante aussi programme bi dina nous a mën a jëm kanam te askan bi yëpp dinañ bénéficier wu. loolu moo waral tey ñu lancé programme évaluation bi nga xamante dans 120 jours tout au plus dinañu avons am benn rapport définitif bi nga xamante ne dinañu def ay recommandations des options. yi ñu war jël après. yi euh, ñëpp xam nañ ko maanaam euh, dettu CMU bi xam initiative de gratuité nga xamantene plan Sésame ak 05 ans ak césarienne yi nga xamantene askan bi bu ñu demee ci hôpital bi duñ ko fay loolu CMU moo ko war fay donc am na ay factures yoo xamantene maintenant fayaguñ ko ba tey ciblage bi maanaam initiative de gratuité aussi ñan lañ ko jagal est-ce que ciblé nañ leen bu baax euh, mutuelle de santé parce que mutuelle de santé yi ñu si bëri existé nañ wante askan bi nga xamante ne moo tax ñu jug

xool nan lañ koy euh, en tout cas évaluer nan lañ koy saytoo buñ ko saytoo aussi ñu mën a dégager ay solutions yi nga xamante ne dinañu permettre ñu egg fu ñu jëm